al ibadatu wal di jaamu yàlla ak li téyal lislam asalaamaaleykum waa al ibadatu wal xidma maa ngi nuyu baax leen ziar docteur Ousmane Gueye chirurgien les hôpitaux Oussogui yéen ci gëj ci bi xam naa xam ngeen mu demee rek xat-xatu lool lool lool ak responsabilité yi di tàmbalee sama nuyoo ci sëriñ Xaadim Diop di ko ziar bu baax di kontaan lool ci kàddoom yi ak fàttali gi mu def di gën a bég lool ndax fàttali nañu bu baax a baax sëriñ Abdul Ahad taxawaayam ak yitte bi nga xam ne doxoon na doxoon na ko liggéey sëriñ bi te loolu ba tey jii jàpp naa ne dara soppeeku ci sant bu baax suñu sëriñ sëriñ Bass Abdou Rahmane ci kàddu yi ñu yëkkati ak képp koo xam ne yëkkati nga xutba jamale ko ci tolluwaay réew mi ngir rek réew mi dal am jàmm tey jii nag di bisu màggal sëriñ Abdul Ahad damaa toog xalaat may nes ko mën a màggale mooy li ñuy màggale màggal yëpp berne jàng alquran jàng xasida fàttaliku itam mag ñi su may fàttaliku sëriñ Abdul Ahad itam damay fàttaliku kilifa goo xam ne nguur weegoon na ko lool amoon na itam doole lool ci seen kanam ba mën a yëkkati kàddu ci kanam mbooloo bi yoo xam ne léeg-léeg nit tiit ci waaye ñoom ña koy dégg ñoom ñooy tiit ndax ki jàkkaarloo ñoom di ko wax xam nañ ne mënuñ ci moom dara te leen li leen di wax dëgg la cëng la buñ ko jëfewul am jafe loolu nag daf may fàttalikoon jamono jii ñu toll fi réew mi xanaa kon dañ koy jàngate ni xëy na du joxoñ bi ñu joxoñ baaraam léeg suñuy kilifa ci jaaxleeg taalibe yi léeg-léeg duñu dégg yenn kàddu waaye itam ñi nga xam ne ñaari at ci ginnaaw ba réew mi yëngoo ay kilifa lañ leen seet si woon taxoon ñu dal léeg-léeg ñu def seen i kàddu tam xaw ñoo joxañ baaraam ne ana ñooña ndax xam nañu suñuy kilifa du ñoo xam ne dañuy togg di seetaan réew mi xaj nañu itam dañuy bari wax te comme nañ leen diplomatie itam kenn du ko def ci mbedd jàpp nañ ne ginnaaw yenn ci moo tax ci loolu kon xam naa damay jàpp rek li nga xam ne moom sëriñ Mouhamadou Mountakha waxoon yàlla na fi yàgg lool te wér lool yéenam rëy na li mu bëggal liggéey sëriñ Tuubaa yi yéen ñum avital ñëpp xam nañ ko ku ne yaa ngi ko xam naa la nga waxoon ne moo jar a bàyyi xel nga waxoon ne ne te ba muy toog toog di toog jotaay sëriñ Tuubaa bi ne sëriñ ngeen baa ma su fekkee jum naa ci baat yi waxoon ne sëriñ bëgg nañ ko sopp nañ ko waaye xamuñu ko dunduñu ko dafa mel ne kon loolu moo ñu dal ba tax léeg bu réew mi toll ci jafe-jafe ñuy jaaxle ko tiit waaye su fekkoon ne dëgg dëgg dëgg nit ñu koy suuxatale bis mu ne sëriñ bi dem nañ tey ba àggoon ci xam sëriñ bi ba nappi di ko dund yaakaar naa lu mën a réew mi mën a yëngu yëngu yëngu dañ naan tekk rek nga xam ne allah kulli xalin jàmm rek mooy am waaye xëy na kon doomu aadama faiblesse am xaw ma néew dooleem tax na ah àgguwu ji foofu yàlla ñu ci àgg dem nga xam ne mën a xew rek ñu dund sëriñ bi waaw te wóolu ko di wax ne daal moom wax dëgg yàlla mbir mi nopp ci dalul yomb ndax ay citoyen dong lañ ndax ku fàttalikoon deux seize te am na kàddu yoo xam ne ku ko yëkkati tey jii bu doon boo ko yëkkatee tey jii day mel ne da ngaa xaw nguur kàddu yooyu boo ko yëkkati woon 2016 da ngay am na kàddu yoo xam ne boo ko yëkkatee woon tey jii da ngaa ñi fi toog ñi fi ñi ñi wuti ñi wut nguur opposition soo ko yëkkatee woon 2016 da ànd ak ñoom loolu moo xaw doy ci mbirum politique moo ci doy waar. ci niñ koy defee ci Sénégal tey soo waxee ñun la waaw wax nga dëgg lii laa wax boo liggéey soo ko waxee ñun la waxoo dëgg ndax waxuma lii mu daal di métti lool bu ñuy màggal sëñ Abdou Lahad nag tey jii ñii laam-laamee ndax ay takk der dañu dem jëli ab homme ci doole ba tax ñëpp tiit ci yaakaar naa ni kon taxaw ah, seetlu day daal di jot ak ñaan ci bis bu tedd bi yàlla musal ñu ci fitna ndax réew mi fi ñu moom wax dëgg yàlla ku ko wax ku ko waxul ak jaaxle am na ñu ci guddi goo xam ne daal kenn xamagul lu bët di fete ak jaaxle am bëre bëre ku ci nekk nag am na noo ko xalaate ginnaaw xalaat day wutee te ku nekk am na noo ko xalaate te kàddu yu nit yëkkati am fu ñu féetale ba ci sama kàddu yi kon damay koy yamale foofu bañ ca sori ci ay commentaire waaye ku nekk rek sa àqulaay taala xam nga ne am nga looy yëg yàlla nañu yàlla dimbali jëf maa ngi jéglu bu baax di ziare sëñ Basiru baabu am na lu ma si bëggoon a dama koo fàtte woon mooy wàllu baatu dee baatu rey liñ koy yëkkati ci réew mi fan yi ëpp na jéggi na dayoo dama sonn naa dégg ci waxtaan su ma jumu ci groupe bi wala feneen kilif di wax ne balaa ngi ci làmmiñ balaa ngi ci làmmiñ kon baat boobu maa ngi ñaan waa groupe bi kilifa yi na ci yëg seeni kàddu yi nit ñi di ko teg ci suuf bu diñ toll li ñu wax baatu rey ak dee bari na lool te rawatina ñi koy gën di wax mooy ñu jiite ñu jiite ci wàllu politique bi ak fànn buñ mën a bokk koy def naa dañay rey bu ne reyee ba ci ay ba ci ay ay ay ay diine ay imam ku fi def nangam dañuy rey ku fi rey yaay ñàkk ku fi def nangam boo dee ku fi def nangam dee ku fi def nangam buñ la rey ñi ci des naan sama bakkan laa ci teg réglu ma dee jaral na ma dee danañ balaa ñu ci lami kàddu yi mu wax ma koy wax sax yàlla na suñu borom yàlla na ko yàlla jéggal te musul ci balaawu làmmiñ ba ci sama bos jar nañu bàyyi ci xel bu baax a baax guddi liñ koy wax bari na trop te doomu aadama lépp lu muy faral di wax ak lépp lu muy faral di teg bët bu yàggee da koy miin dutu ko ragal su yàggee da koy bind di ko ragal kon nañ ko bàyyi xel bu baax a baax baax gis nañ ci réew Afrique yi léeg-léeg doomu aadama ci moroom di def si moom loo xam ne da loo xam ne buñ ko buñ ko andi woon jaan du matin sax du ko def moom kon lu mat a bàyyi xel la buñ koy wax bari na lool te benn benn yi ñàkk seen bakkan ji di teg seen bët di ko commenté itam ak mii lay indi ci ci wàll lu mel noonu yàlla na yàlla ci Euh, euh, asalaamaaleykum wa rahmatullah waa sëñ xabbaan ñu ngi ziar lu bëri di ñaan jàmm ak sutura di ñaan yàlla defal ñu jàmm yokk xéewal yi def jàmm ci njaboot gi suñu kilifa yi yàlla bàyyi leen suñu kanam suñu Muntaxa yàlla may ko wér ak sutura may ko kàttan naa li mu naa li yëpp yàlla yeggale ko ci alhamdulilahi rabbil alamin Euh, waaw suñu situation dëkk bi moom doy na waar ndax euh, Sénégal dafa nekk réew boo xam ni dafa mel ni loi ak kaddu daf fee amatul dayoo ndax euh, liñ daan nawe kilifa mooy kaddu ak li ngeen xam ni yéen ko bokk ku nekk sàmm ko ak kéem kàttanam léegi nag dañoo dem ba jàpp ni politique daal moom euh, li nga wax tey suba bu la neexee nga génn te loolu te mën loolu mën am conséquence ci dundinu ay doomu aadama yi ndax euh, kilifa diine yi ñoo daan nekk arbitre wante tey kilifa politik day dem taxaw ak kilifa diine wax ko wax joo xam ni bu ëllëgee mu mel ni wax ji engagé wu koon kooku non seulement du respect mais aussi nekkul war ma pour réew réew dafa am islaay yoo xam ni kenn waru ko laal kenn warul caa dugg kenn waru ko jéem a euh, nërmeel ndax conséquences yi fa muy egg yow dootoo ci mën dara mën na ko ba dal ci sa kaw ndax doole moom euh, bi nga am tey suba mënatoo ko am kooku moom ala yàlla rek moo am doole bu dul jeex ndax tey jii boo xoolee yaay yaaye jaame ci ginnaaw ku mu ni woon bul fanaan bi euh, Gambie te boo say mbokk takkal la say bagage wante tey Gambien ba gën a ñàkk solo ko fa ëppale donc loolu rek war na jox leçon yi doole moom yemul fenn ndax li gën a ëpp ki daal mooy liy wëy daal mooy dëgg dëgg moom bu mettee tey itam suba dina neex wante doole moom bu neexee tey itam suba dina naqadi malheureusement nag ñi nga xam ne dañuy jiite duñ ci bàyyi xel te bu yàggee réew mi day dem ba neutre sax ku mën a arbitrer dootul am day mel ni rekk foog confrontation xeex mooy am ku ëpp doole sa moroom dafa mel ni ci loolu lañ jëm ndax ki am doole wóoru dooleem ki muy jaamaar loolu bu jàppee ni moom tamit du ko nangu mooy fokk confrontation am te confrontation boobu moom du jur jàmm mukk ndax euh, ku ci gaañ sa morom tam sa mbokk rek nga gaañ parce ku ci faatu ñi ko faat ñooy dem di ko jaale ji di ko jaale jënt donc amul njëriñ mais seytaan yi bu laxasoo ci fenn moom day mel ni ñëpp ñëpp dañoo ànd gërëm te nit boo koy topp ba mu sës fokk mu jaamaarloog yow te fi mu toll Sénégal dëgg da fee réer réer réer ba nga xam ni kenn xamul nu mu parce que xale yi bëri nañu te ñu ci bëri amatuñu yaakaar xam nga ni kiy jël bato boo xam ne xamoo fan lay teere ji te xamoo lan nga fay fekk yaakaar dong moo la ko tax a jël ba ñuy wàññi ñi faat ci géej gi ñi nga xam ne kenn gisatu leen ay jeunesse bu demee ba toll foofu xam nga ni ñooñu bu leneen taxawee itam bul yaakaar ni ñàkk nañu fit donc fi mu toll réew mi euh, ni mu mel buñ ci jógul wax ci fa muy jëm du neex kenn te mooy situation boo xam ne ndam du am ndam du jóge fenn ndam kenn du ci am ndam waaw ñëpp a ci yàqule waaw ki ki ki képp koo xam ne euh, dugg nga ci confrontation ndax dangaa am doole fokk rek la cay jóge mukk du la neex boo ci nekkee nag yor doole parce que ñi koy def toujours duñu mesurer conséquence bu jàllee rek la ñuy doog a wax naan bu ñu yëgoon bu ñu yëgoon bu ñu yëgoon Sénégal dañoo tàmm di wax ci conséquence yi te duñu wax ci cause yi lii waral mbir moom la ñu war a jëkk a wax bala ñuy yegg ca la nga xam ni moom la yàq yàq nag bu jotee wala coow ca la nit ñi gën di sol seen dàll mais ba coow amagul nga xam ni lii drame ci nag ba la jëm boo ko arrêté wul ba mu yegg ci nag ba boobu moom coow yi bëri rek mais yàq-yàq fokk mu am fa donc situation bii ñu nekk moom wante nag dafa mel ni daal euh, malheureusement xam nga njiitu réew moom boo ko xasee wax mooy ëmb nga lépp njiitu réew mi moo waroon a jiite dal bi moom moo war a indi daal ci réewam moom moo war a yi bañ a yee fitna ci réewam loolu nag pour dimbali ko ci xëy na am na kilifa yu muy jéggal am na ñu mu jege ñoo xam ne ñoo ko ci mën a dimbali sinon rek euh, musiba lay doon yal ni yàlla dolli sutura euh, def jàmm ci réew mi ak njaboot yi ñi wut liggéey yàlla may leen liggéey ñi tawat yàlla may leen tawféex asalaamaaleykum wa rahmatullah